arrêté nañ leen police yi daw nañ police yi ngi di daw police yaa ngi noonu di daw xale yi yaa ngi leen di dàqee police yaa ngi noonu di daw xale yi dàqee nañ leen xale yi ngóor yi dàqee nañ leen police yaa ngi noonu di daw police yaa ngi noonu di daw police yi ñu ngi noonu di daw xale yaa ngi leen di topp di leen dàq ñoom Badel door na Badel door na Badel yee door na Badel cameraman bi <laughs> maa dañ toj yee maa tey xale yaa